Eh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, mbokk yi nga xam ne yéen a ngi déglu Hurratul Irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu eh, di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm te ñuy nuyu képp koo xam ne rek suñu kàddu dana la jot léegi nga xam ne moom lañuy ñuy defal tey suñu tan bi ak irsaad bi Euh, mooy li Serigne Abdoul Aziz wax ne man dama luum dama wedam wedam ak luum waroon nañu tuuti luum mooy ngay daa seen technique ki ba mu yey la ba nga nu ba nga mënatu ba xamatul wax loolu mooy luum wedam nag mooy nga dégg lu la jaaxal jommal la ba faf jaaxale ga ak jommal gam la jommal tax laa noppi waxatuloo loolu mooy wedam sëriñ Abdul Aziz ibnu Sidil eh, eh, Mam Hadi ci boroom xam-xam yu mag yi la bokk ndax ku toll ni Mam Hadi bu bàyyee daara daara jooja ko ko yor ko ay doomam kooku am na lu ko yàlla sidd sax moo ngi woo xalifa yi ngir ñu wax ci li nga xam ne ñoo ngi ci réew mi waaye ëppante mbooloo de mën naa nekk waaye ëppante maqaama moom ci ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo yi nit eh, <clears throat> ba tax na moom itam bu mu xeeb boppam na ñaan te wax kenn xamul ku sa ñaan di nangu kenn xamul ku ñuy dégg say wax eh, njuumtal Moustapha Diakhaté lii nag ndax man njuumtalaa ko mën a teg lii njuumtali mooy dafa njëkk ay waxam ay wax yu bëri moom jàngul alxuraan ju xam naa ne tubaab la jaar damaa dégg muy làkk tubaab noo xam ne dégguma ko mu di ko waxee alxuraan moom ci laa sukkandiku waaye xaw ma ko dafa mel ni ki jàngul alxuraan ni mu jàngi tubaab xëy na yàgg naa dégg ay nit di wax loo xam ne day wàcce daraja yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi te kilifa yi noppi ci bañ a wax xam nga sa njaboot wax lu dul yoon nga woo ko ci ruq ngeen nguumat ko fa mën naa nekk ci kaw su fekkente ni wax ja dafa yem ci seen biir waaye bu seen njaboot yëkkatee kàddu wax lu ko rap yow it war wax lu wër addina bi kap daj ko rap weddi la sa sa njaboot googa wax boo gisee ma waxee noonu jamono yi paase dafa am mbokkam taalibe bi mu nekk yi mu ma yónnee audio boo xam ne bu yàggoon la euh, ki ko waxoon wax ko euh, ba ñu tuubloo ko ba yedd ko ba wax ja jeex waaye mu def ci internet bi mu am ay groupement whatsapp yi nekk Mauritanie ci weer bii génn weeru tubaab bi ñu génn ñu doon coow wax jooju nga xam ne moom la kooku waxoon di ko fa coow di ko fa coow di ko fa coow ba sama mbokk moomu yónneewaat ma wax ji boole ci di ko naqarloo ma ah, lii de yàggoon na waaye nag wax ju rëy boo ko waxee mu des ci àddina fu mu egg rek keroog la fa bees ba tax na kilifa yi bu ngeen buggee jàmm ci réew mi dee leen artu nit ñi wala boog bu nit ñi waxatee yenn wax yi yéen kilifa yi yëkkati leen seen kàddu wax fa ñooña waxee mu tas ndax wax yooyu gaa yi di wax day tas di dem te am na ay mbindeef yi yàlla yu nekk ci àddina bi yoo xam ne bu ñu déggee li ñu wax ci yeneen bi ñu wax ko ci réew mel ni Sénégal nit ñi noppi ci ñoom lay seeni fexe mooy buñ ko mënut a faj ci làmmiñ yi danañ ko faj ci seen doole te su boobaa musiba rek la indi ci réew mi moo xam ne kenn du xam fu mu jëm xal nag day dugg ci mboob muy taxa ngelaw liy ngelaw ñi naan fay leen ko gaa mu taal ak daay daay ga taal tool taal yi sàq taal yi dëkk te fekk mënoon nañ ko fay bu mu door a tàmbali yéen ci Muhammad mii ñuy waxal lu nekkul ci moom yéen waa senegal dong ngeen di ko wax te fu ñu waxee yonent bi nangam ngeen jóg di rëtt di coow naan da di marché da ngeen di nii te yéen ci seen bi bopp ngeen di ko wax di ko nguumat bu leen yaakaar ne lii ngeen di wax ci wolof arab yi dégguñu ko dégg nañ ko de ndax Mauritanie gii sës ci moom lépp lu ñu wax Sénégal ñu ngi koy dégg te lépp lu dugg ci internet bi ñu jot ko ñoom danañ ko traduire en arabe danañ ko wax boobu leer nandi danañ ko sànni ci biladul arab ñu ne Sénégal lii mooy seen jikko lii mooy seen jikko lii mooy seen jikko te li ma gën a naqari moo di ne wax yu safaanoo yooyu yëpp yi ci ëpp ñi koy wax ci waa kër seytaane yooyu mu waxoon ne dinaa leen boole Sëñ Tuubaa ñi di ko tuddoo dañ cee bokk Sëñ Tuubaa wax na fi njaarim nee na ba seytaane xoolee ba xam ne sama diggante ak saa borom munu ci dara mu xool xam ne sama diggante ak yonent yi munu ci dara lenn doo nga ko dese mu topp di wër àddina ku bon ku mu gis ku safaanoog dëgg dëgg ku mu gis mu ne ko demal ngay tuddoo keenee maam demal ngay tuddoo Sëñ Tuubaa man loolu li tax ma seetlu ko mooy li ëpp ci njombe yi nga xam ne ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax Sëñ Tuubaa la tuddoo waaye na leen wër na yéen yéenay cërëb seytaane ci biir yoonu murit la leen wër na yéen yéenay cërëb seytaane yéenay cërëb seytaane ci biir yoonu murit moo xam da am xam-xam di ko wutee seen wërsëg ba tax ngeen di wax ci wàllu dul dëgg moo xam dangeen a am daraja di ko wax moo xam lu mën a demee di ko wax moo xam tax ngeen bokk ci askanam ak meenam zantu aw santam moo xam ngeen dooni taalibeem waaye na leen wóor ni kenn ku nekk ci nun bu wériféwul boppam na la wóor ni di nga nekk ci cërëb seytaane ci biir yoonu murit te loo ko xam Sëñ ne woon na ba seytaane xoolee xool xam ne mënul ci sama liggéey bi dara dafa wax ne léegi kon li may def mooy damay seeti fu ma gis ko bon mën a ko demal ca mbooloo mu xumb mee ngay tuddoo kee yal na yàlla def jàmm waaye yoonu murid day bu fekkente yi nii mu demee ne leen ko bàyyi mu continuer suñu der dana yàqu ci àddina bi ba ba mu daj kapp ndax njombe loo dégg ci réew mi di ko wax di ci gàtt gàkkal yonent bi sallallahu alayhi ñu di gàkkal yàlla suñu borom ñun am nañ ca wàll ndax dëgg wax ko du tax du tax a dee du tax du tere gudd fan ku la mere say yoon nekku ci Moustapha Diakhaté moomu yoonu murid lay tuddoo di ñibbi Touba te fi njëkkoon a wax wax jooju mi ngi mur te ñi di ko coow fu mu nekk nii xëy na yam dañ ci door a jot Mbàkke la sant ñibbiwul Touba dafa dëkk ka ca topp te sant Jóob ab taalee murid la te li ma gën a naqari mooy Sëñ Tuubaa du ko ñu réer ci àddina bi waaye jël photo Sëñ Tuubaa teg ko ci sa ginnaaw taxaw ci kanamam di wax ak weddi yàlla di ko ko adressé muy wër ci addina bi nga defe ne yow yaa ngi ci dara lëkkoo ci dara ndax yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi lootaabe musiba moo xam ne bu dikkee du bàyyi ci murit yi kenn dama yaakaar ne sëñ Bamba amut sët wala doom ju gën Sidna Aliou te muy maamam sëñ Bamba mënut a am ab sët wala doom ju gën sidna Ali Abi Talib te Ali ibn Abi Talib di maamam moom ci boppam loolu moom haqiqatan laa ci am Aliou ci diggante jàkka jàkk kër ga lañ kon loolu jombul keneen dama yaakaar ne sadiquul mukabbaru su aybatil muaqaru anisul musabbaru fil ba fil xaar yi kooku ni ko suñ tubaa tagee muy sidna ba Aboubacar Siddiq mu wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddu jaasi ne lii du fi amee di xeex ci ku ne joxe asaka rek tax mu jaral ko xeex damaa yaakaar ne gënuñu ko jege yàlla ëpp ñu ko xam-xam waxuma la bañ a joxe asaka rek yem ci waaye gàntal jaamu yàlla sax ñu ngi koy def ba ko fi ba ko ci ban sañ-sañ lañ am ci loolu ban sañ-sañ lañ ci am amuñu ci benn sañ-sañ te daanaka koy wax ku nekk sa bakkan mi ngi ci xottu gerte waaye bu ñu la reyee te fekk nga wax dëgg ngir yàlla ngir yéen tamit sëñ Bamba nga fekk suñ tubaab toog fa di xaar ba ñu dikk ñoom ba fekk la bu ñu la fa fekkee dinañ xam ndax yow yaa nekk ci dëgg wala nekkul ci dëgg ku ñu gis ak ndëmm loolu sa ci yoon yi bëri yoonu murit yéen kilifa yi waxu leen de waaye day am na ñuy wax de am na ñuy wax. seetal leen seen bopp ci ñii nga xam ne dañuy dañuy gàkkal lislaam di gàkkal shariatul mutahara di gàkkal a munawara di sàkkal yéen ci bi ay moroom ak di ko sàkk sax ñu ko gën di sàkkal yàlla ay moroom bay sàkk ñu bind yàlla di xas yonent bi xas ay waajuram tey askanoo ci yéen am leen fulla ak fayda ci loolu ngeen fajal ko seen bopp bala ngeen a toog ay di jóge ci àll ba ñu fi di suuli bomb ka taali kër kër rajax rajaxi te bu day am ay archive yu leer nañ yu ngeen mënta weddi yoo xam ne dañ koy wane ne yii lii yéen ko wax ci yonent bi lii yéen a ko wax ci yàlla yii te booba yéen waxu leen defu leen te sàggan ngeen ba musiba dikkal leen moo xam ne ñi leen ko indil ci seen biir lañ juddoo yaroo ci indi leen musiba te mën naan sax bu baa fekk dee nañu ndax ñiy wax njombe lii dañuy dee te lii ñuy wax du fi ba mukk man sax mën na ma koy bañ a fekk waaye nag un jour bu leen yaakaar ne kaaraange gii ñu am day continuer kaaraange gii ñu am du continuer xam nga lan mooy kaaraange gu wóor mooy nanu yiiroo alxuraan ak sunna topp sariya topp topp yàlla yonent bi saa sal nekk ci lislaam yem fi ñu war a yem waaye rek fi ñu toll di tallali di wax kenn ku nekk ko te li ma gën a naqari mooy ku ci wax Tuubaa nga dëkk ku ci wax am njombe rek Tuubaa nga dëkk xam naa bu ko laat xame woon nii kon du leen fa woo kon day def ci biir bi waaye nekk foofu Touba rek di wax ay toj pénc di wax ay njombe di wax lu kenn mënut a dégg te amee nawle yenn yi yenn yi mat naa seetaan yenn yi mat naa seetaan sëriñ bi ku yem ci li mu bind doo wax fekk pénc ku yem ci li mu bind doo génn sariya ku am dëgër fit di ko dóoral lu amul benn dalil nag yow la yow la concerné da toog ba sax dund dee di la ko gënal te dara waralu ko lu may nit ñi topp seen bànneex ak nit ñoo xam ne dañoo sàggane lañu waroon a lañu waroon a farlu sa doom bu saagaa ci biir kër gi yedd ko ci kër gi bu demee ba ca penc ma fa yedd ko ca penc ma bu waree nga toj nopp ba ca biir mbooloo ma xam ne yar nga ko waaye tojere mojere wu ñu wax rek buñ nekk ka ko wax ñu ne Tuuba la mu jëm kañ loolu mu tëwéy Moustapha Jaxate murit nga nga wax Touba nga dëkk man de xuma sax jaxate ndax jaxate yi mën naa am ay jaxasoowaale ci biir waaye man jaxate gi ma xam ñi ni gi ma xam ma ne ñooñu xam-xam lañ ma a xam ci ñoom ak ragal yàlla ak sàmm waaye wax aw tëj penc tax àddina yëpp di coow ñu xamuñu koon ci waa njaxate xam naa ne yow bu dee ci askan woo nga bokk da nga jaa da ngaa jaxasoo ci biir njaxate waaye da nga cee jaxasoo laa wax waxuma bokkoo ci de da cee jaxasoo laa wax ci nga bokk ci sa dara fekk saw yàpp wax loolu moom waxuma ko mais da ngaa jaxasoo ci biir njaxate li ma ci jublu mooy yow da nga da ci njaxate te jànguloo la ñu jàngal waa njaxate lu ma nga jàngi leneen na nga moytandikoo bokk ci wàllu seytaane wi nekk ci biir kër Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa kat seytaane am na wàll wu mag ci biir këram lu nekk ñu ngi la ko yekk ba xasaale yonent bi ñi ñi ñi défendre ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi défendre yonent xas nañ ko ci biir te ñoom duñ ko setantal kii wax Seydou Diallo mu doon wax ànd ak ku ñuy wax Souaïbou ca CCB Seydou Diallo dafa laa wax ne dogoon ko nag yonent bi doo doon doomu yoon kon Seydou Diallo li mu wax mooy yaar rekk mën a am nun sunu maam ya dañ amul dañoo xamul woon ak soxla dañoo mel ni ay xare ki béy ba bi islaam ñëwee lañ ko door a xam wa imma boo yonent bi la jiitu ab juddoom ñëpp ay doom yu dul doomi yoon lañu loolu Seydou Diallo boo ko waxee dama ci génn yonent bi kon yonent bi ñeent fukki at la ko yàlla yónni bi su fekkente ni bu dëkk bu dëkkut woon non waaw yow si dëgg laa nga wax maa ngi lay maa ngi denc sa audio sa sa sa sa sa sa woon nga doon doom ju dul doomu yoon loolu nga wax loolu du moom rek bu dee li nga wax dëgg la du moom rek waaye sëy dooteen maa ngi lay xamal ne mayat sëy moom bu fekkente ni ginnaaw lislaam la doom ya di dagan waaye ma ne yow mbir mi seetantal leen ko di ngeen wax da ngeen koy seetlu seetlu leen ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam biñ ko may suñu yaay Xadijatul Kubra boobu yàlla yónnee ko ko may googu foo ko àtte nga xam ne mooy bàyyi yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam bañ koy may maam Aminata di wax di loo xam ne di taañaañal freiné leen yow Seydou loolu ko man faralewuma faralewuma Moustapha Diakhaté ci loolu de dama lay jàjjanti ndax dégg naa ngay wax naan oustaz Mor Thiam na taxaw ci rajo bi jéggulu wane ne dañ ko laajoon ab laaj dafa juum mais yow it Seydou taxaw ci rajo bi jéggulu ndax dangaa juum soo nee bu mu amat dikkut woon kon diw du doon doomu yoon kon la muy tekki mooy ba mu amat dikkagut kenn doonu doomi yoon ñaareel bi bi mu amat dikkee kenn ku dul ab jullit doonoo doomu yoon te gis mayee boo déggee yàlla na laa nikkaa abidooni waliyin mayee nga tàmbalee ba yàlla ma bindee maam Adama Seydou Diallo maye sëy islam da ko fee fekk mooy premier pied bi bi yàlla njëkk teg ba yàlla ne yaa Adama uskun anta wa zawjukal jannata uskun anta wa zawjukal jannata jooju moo def taswiij bayna maam Hawa wa maam Adama waaye ci loolu mu laaj ko can can ga mooy laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah waaye nag laa nikaaha birooni waliin jooju ak yonent bi wax dëgg la même sëy maam Adama ak Awa wilaayatullaahi moo fa taxaw ndax moo ko ne yaa Adama uskun anta wa zawjukal jannata kon wa zawjukal jannata jooju moo taswiij bayna Adama wa Awa kon sëy sëy dafa sas àddina loolaa waral ba maam Adama amee xaabil mu ànd ak ab seex mu am xaabil mu ànd ak ab seex Adama ci boppam daal di jëfandikoo la yàlla santaane te mooy laa nekk abidoo li waliyin mu ne xaabil jëlal seexu xaabil xaabil jëlal seexu xaabil te xaabil bañ na du ko def takkab sëy takkab sëy sunnatu laa ila soo xam ne yàlla daf ko def ci doomu aadama yi mu dale ca maam aadama man xamuma ci àddina askan wu aadama jur ak nu ñu mën a deme ak ñoo gëm yàlla ak ñoo wedd yàlla moo ci yem xamuma ci àddina doomi aadama yooyu dem ci ñoom te doo fekk jëkkër ak jabar picc yi sax dañuy am jëkkër ak jabar waaw ñi ñuy rendi di lekk daal ñoom amul jëkkër ak jabar ñoom ginaar amul jëkkër ak jabar ñoom béy amuñu ko ñoom xar amuñu ko ñoom nag amuñu ko ñoom ñëpp gëléem amuñu ko waaye picc yi sax yii naaw ci kaw jaww ji sax dañoo am jëkkër ak jabar kon bul saxal mukk ni bu yeneen bi dikkul woon diw doo doon doomu yoon ndax su fekkente ni dikkam yonent bi moo daganal sëy yi sëy yi takkoon mu amat judduwul foo leen di féetale jànguloo mbir yàlla Muhammad ñi di ko jox suñu maam suñu maam suñu maam Xadijatul Kubra te baayam demoon ànd ak doomi baayam ñi di ko ñaani ñaan googu boobu Muhammad yàlla yónneeku ko loolu ci diine la sa bokk dama bëgg nga xam ne dafa am lu nit ñi jàpp mu bokk ci diine lu yàlla santaane te bawuñu ko depuis Adama ak léegi am lu nit ñi jaxase te bokku ci am lu ñu bax te mu bokk ci waaye la ñu woon mu di mayib sëy képp kuñ mas a géew may la ca jamono yu jiitu ba mu amat saa sam sax jamono ku ñu mas géew may la comme ni yàlla maye woon maam awa maam adama doomi yoon nga ji set wicc da ngay doon doomi yoon ji bokkaale kay maa nga doon doomi yoon ji doon ab yéefar waaye doomi yoon nga ndax ci yoon lañ jaarale sa sa may ak ndey loolu Seydou Diallo na ko rectifié su ni dégg sama kàddu na nga ko rectifié bu yonent bi ñëwul woon ni du doon doomi yoon li muy tekki mooy ba yonent bi ñëwagul képp kuñ ku juddu doon doomi yoon loolu lay tekki ndax bu yonent bi gane eh, àddina ci Makka booba diine ji fi nekk muy diine eh, nasraaniya benn nit lañ ci xamoon defe naa ne benn nit war xatam nu nawfal lañ ci xamoon ñu ne daana bind ci tawreet ak linjiil waaye tudduñu keneen booba sirku billaahi fa nekk waaye ci biir sirku billaahi yi da jàng di gis ñoo xam ne dañoo nekkoon ay xanafiya di topp yonent Yàlla Ibrahim kennal eh, yàlla suñ borom subhanahu wa di wër kaaba gi donte xamuñu leneen lu dul loolu kon la yàlla yoonaloon bu yàgg ca maam Adama mu ne fi ku dikk fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi seeti soo ko bëggee dajji ne bu mu amal dikkut woon loolu du tegu ci yoon nangoo su ñaari yëfar yu gëmut yàlla bu ñu toogee mayante ak sëy sëy bi moom yàlla d'accord na ci ndax noonu la ko mayee woon ca maam Adama ndax bu fekkoonte ni du woon loolu kon yonent bi duñ fiy nekk képp ko dugg ci lislaam dañ dañ dañu naan la nañu indi waat sa jabar ñu géey waat may la ko Aboubacar bi muy dugg ci lislaam booba booba booba booba booba am na ay gore borom borom kër la ndax jàng fenn ci ustaas ci ci ci histoire Seydou ñu ne yonent bi nit mas naa ñëw ci moom ne ko damaa dugg ci lislaam mu ne ko nañ indi sa soxna ñu mayaat la ko loolu moo lay xamal ne gépp nit ku takku soxna ci takkin wi nga xam ne moo di mu bëgg la nga bëgg ko ay kilifaam d'accord ca ñu tudd ak can mu ami seere ñaan yeeg rabbana yeeg yaa yor la ci yaa yor naake bi yëpp moom ay rafetal laa ki jekk-jekkal rek waaye sëy bi moom mooy nga bëgg ndaw sa ndaw sa bëgg la nga ami kilifa ndaw sa am ay kilifa kilifay ndaw sa ànd ca bu dee gone mu ami seere ñu tudd can nga joxe ko kii maye ne may naa la yow ca sa bopp nga ne nangu naa wala sa baay toog ñu may ko mu nangu sëy ba dagan na bu ngeen ko defee te doon ñaari yëfarit su ngeen duggee ci lislaam bu ngeen takkaati sëy ba sëy ba moom day continuer ndax loolu ca jamonoy aadama ba léegi te kër sëpp ko nañuy seetlu wax ji ñuy wax jamono yu wees yëpp nag ñoo ngi dégg boroom xam-xam yi wax dañoo nekkoon ci ay ay yitte waaye wala xad naraka ina taquum fa taqallubaka fi saajidin gaa yi firi nañ koo firi firi firi firi firi ba mu ne wisër moom firi lu raw li ko gaa yi firi waxoon naan fi ne Sëñ Tuubaa dafa wax ne nan bun karimun salilun min karimin min kiramin xiyaarin saadatil usuri wa kullu ummin nikaa la sifaaha kama haka sowul ilmi wal irfani fi siyari muhammadun ibnu abdillahi man nasabooli saybatil hamdi man manuellement waaw léegi loolu ku ko dégg Sëñ wax ko nga dem ci aji Malik wax ko nga dem feneen keneen wax leneen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay waajuram ci fi nekk bi ñu fi nekk diine ju tege ci yoon amut ab yonent wóosewut ba nu jóge fi dem kan moo leen mën a atte ci àddina te àllaaxira amagul Moustapha Jaxate dafa jàngul diine fa ma tàmbalee woon ñu tarxis ko mu dugg ci kàmb li dugg ci kàmb gi mooy ah dafa dégg ñu naan ñaari waajiri yonent bi ña nga jëm safaan ba safaan ba kenn demagu fa boo demee jahannama kenn néew ginnaaw yow mal xiyaam la nit ñi dem safaan wax naa leen ko ba tey dinaa leen ginnaaw yomal xiyaam la nit ñi dem safara ginnaaw yomal xiyaam la nit ñi safara alxabru nag rawdatun min riyaadil aw hufratun min hufari waaye naaru jahannama moom ginnaaw yomal xiyaam lañ fay dem loolu mooy premier njuumte li nga xam ne dégg naa benn ustaas salafiya bu koy wax naan mu amat waa juróoma nga béréb sàngam def ñaareel bi addis boobu ñuy wax ne yeneen bi dafa ne yàlla damaa bëgg dem siyaare ji sama bàmmeelab waajuru jigéen mu ne mën naa nekk dama ko bëgg a jéggalu mu ne déedéet yéen kenn daa xam ban cause moo tax yàlla ne yeneen bi bu ko jéggalul bu fekkente ni dafa bokk ci alul fatra dara bokk ci ñu toppul dara loo ko jéggalule benn ñaareel ba mooy bu fekkente ni am na ci jullit ñi ku ne gëm na yàlla di julli di jàngal xuraan te dib naa fiq yàlla na yenent bi soo boo jéggulul soo boo ba a jéggulu soo jégguloo juróom-ñaar fukki yoon yàlla du ko jéggal waaw bu loolu amee ba noppi mu ne ko damaa bëgg a jéggulu li sama yaay mu ne waaw demal boo demee nga jéggulul ko loolu la yëfari di kii li bon bon gëm na gis na yonent bi topp na ci gannaawam julli ci biir jàkkaam donte am na ak weddi ci biiram kay gis yonent bi gëmu ko ñu ne leen jégalu ko wax bàyyi ki ma ne islam dafa am démocratie te itam secret d'état dafa am te nanguwu leen ko islam dafa am démocratie te secret d'état dafa am ba ci ba ci yàlla gi dafa am secret d'état boo déggee mën a yàlla mu sirra wa axfa sirra ak axfa ku dul yàlla mënu ko xam nañ gàttal mbir mi nañ bàyyi yàlla ak ab taam ak i waajuram li day wu rasul yi waxoon naa fi ne bàyyi leen affaire bi mu jeex wax joo xam ne du jur jàmm jërut a nekk di lawti lawti nañ bàyyi yàlla ak ab taam ak i ñaari waajuram loolu moo gën a noppale loolu Abdullah ibn Abbas wax ne taqallubuka fi saajidiin waaye loolu kay saajidiin moo seen borom am na sax ñuy wax naan euh, min nabiin ila nabiin yàlla waxul min nabiin ila nabiin de taqallubuka fi saajidiina la wax ñuy sujjóotal seen borom di ko jaamu loolu wax addina gi ni mu toll tey bu ñëpp doonoon ay yéefar ñëpp kenn kuy gis muy jaamu yàlla nekk fi ndax dina tax nga gëm ne nit ku gëmut yàlla ku koy jaamoo ngi ci àddina man na fee nekk man na fee nekk man na fee ko xam yàlla xam ay jaamoo wa taqallubuka fi saajidiina loolu la yàlla wax am na sax ñu koy tekkee te way sujjóote ci biir jàkka yenent bi day nekk ci jàkka fii mu taxaw fii mu dem taxaw fële mu taxallubu dem fële mu déedéet du ko def <laughs> dégg loolu ñoom dañoo wax leen ndax rek waaye fa taxallubaka fi saajidiina mooy sa wëlbatiku di jàllantu di wëlbatiku di jàllantu di wëlbatiku di jàllantu di wëlbatiku di jàllantu nadbun karimun salilun min karimin salilin min kiramin xiyaarin saadatil usuri jàllantu boobu nga xam ne moom la yonent bi di jaar ci nit ñoo xam ne bokkaale wu yàlla te dañ ko daan te dañ ko gëmoon mais bu ngeen bëggee ne Abdoulaye daa waroon di jàng alxuraan fu mu gisee bu ngeen bëggee ne Abdoulaye di julli fu mu gisee ku ko ku ko jàngal julli te du yonent wala da ngeen a yaakaar ne bu mu amat dikkulee itam ku gëm yàlla yem ci xam ne yàlla borom asamaan ak moo bind mbindee fi te xamul nen nu mu koy jaamoo yem ci loolu. bàyyi mbon tey defu mbaax ba génn àddina yéenay jàngal yàlla nan lay lijjantee problème waa jooju yéenay koy bëgg àtte te deewagu leen ma ne am leen fi ngeen war a yem génn leen ci yeneen ti bi ci côté boobu nañ fi yem fi mag ñi yem doomu aadama yi buñ demee àllaaxira am na ku ko wax keroog man de dama di ko fàttali am na ko waxoon gis koo xam ne dafa juddu doon ak ci ndey bàyyi ñu nekk ay jullit mu faatu ci mu gone da xam ne dafa juddu ñaari bàyyi yu doon yéefar mu faatu gis koo xam ne dafa juddu ba dee te diine dabu ko gisul ab yonent gisul ab téere ñeent ñii nit ñi di àtte yomal xiyaam ci gàttal ba leen yàlla dajalee ñoom ñëpp ñi judduwul faatu te ñoom doon ñuy mag la lay ci kanam yàlla yow de xanaa yàlla doon yóbbu safara ndax nun buñ juddoo bi ñuy laata ràññale dañoo dee mu ne waa taxu ne ñooña toog am ñu ñëwaat ah ñun de yàlla xanaa doo ñëwee bu safara ndax ñun bu ñu nekkee àddina ba bi ñu fi jógee gisuñu ab yeneen dégguñu bi yeneen te gisuñu diine xamuñu liñ lay jaamoo mu ne waa taxaw leen fee ñooñu taxaw ñii dikk ah yow de yàlla xanaa doo ñëwee bu safara ndax ñun suñu bàyyi nekkoon ñu weddi yàlla ak suñuy yaay waaye ñun bi ñuy laata màgg ba di leen topp ca weddi ga dee nanu mu ne taxaw fee groupe yooyu ñoo am. group bi nga xam ne dañoo nekkoon xanafiyatu samha te aw ñu téere mënuñoo jàng gisuñu ko leen teg ci yoonu yàlla maam Abdoulaye maam Aminata foofu la war a mën a bokk ndax Makka la dëkk atte boobu moom la yàlla di waxee nii ma leen bëgg a wax bu leen dajalee ñoom ñetti groupe yooyu ñii kat dañoo judd seen bàyyi doon yéefar dee nañu bala ñoo doon yi mag ñii dañoo judd seen bàyyi nekk ay julit dee nañu bala ñoo doon yi mag ñii dañoo juddu ba génn àddina gisuñu yonent fekkuñu fi diine yàlla leen di boole benn béréb wax leen ne am na sax ko wax ku wax ne da leen di wax ne dugg leen safara ah kay dana leen ko wax waaye du ko waxee noonu dafa leen di wax ne waaw yéen ñii ngeen yaakaar ne yéen ñii doon yéen ñii yéen ñii juddu ba màggat ba génn àddina te gisul leen ndaw lu leen woo ndax bu fekkoon te ni ndaw woo na leen da ngeen ko wuyu ñu ne waaw mu mu teg foofu kon bu ma leen bu waxee ne naa ngeen gëm ma li ngeen ma gëm waaw kon su ma leen santee da ngeen def waaw su ma leen teree da ngeen bàyyi waaw ñu bàyyi ñooñu dem seen ñi xam ne seen i bàyyi daa nekk ñu gëmut yàlla te ñu dee ci ngone waaw yéen ñii ngeen ne seen bàyyi daa gëmutoon yàlla waaw ak seen ndey waaw ngeen dee te màggu leen waaw waaye yéen di ngeen màggoon ndax di ngeen gëm unité bi topp ko topp alxuraan waaw waaw kon kay loolu ñu wax danañ ko def waaw mu yemale ci ñooñu ñii dañoo si dañoo jibbi seen bàyyi nekk muslim jullit waaye dañoo dee te masaruñu ñooñu yàlla du di wax ne waaw yéen ñi nga xam ne da ngeen a jiddu seen bàyyi seen yaay nekkoon ay jullit ndax su ngeen màggoon da ngeen topp Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw lu mu leen digal di ngeen ko def waaw lu mu te da ngeen ko ba def waaw kon daal yéen ñetti kuréel yépp ànd ngeen ci ne kenn ku ci nekk taxawaay bi nga am bu la fa diine fekkoon di nga topp sama ndigal bàyyi samay tere ñu ne ko waaw waaw mu ne kon di topp sama ndigal bàyyi samay tere ñu ne ko waaw waaw mu ne acca dugg leen safara ndigalal ko ña nga xam ne wax nañu dëgg te bu fekkoon te ni daje nañu diine danañ topp ndigal bàyyi tere dañuy daw rek gëmm ne ca safara patax fekk àjjana lay doon ji yàlla yore def melaw safara ci seeni bët ña waxul dëgg dañu fa nekk di di diital ñii dugg nañ safara oh, ñu yàlla noonu dugg nañ safara lan lan def da nga di wax ne lii lan def ah laa bëggoon a xam yéen fi ngeen daje woon ak ab yonent du ko gëm ak ca safara noonu leen yàlla attee ndax yéen dëgg dëgg na dee dem àllaaxira ba fekke atte ba ba xam ne maam Abdoulaye maam Aminata bokk nañ ca ña nga xam ne bu yàlla ne dugg leen ci safara dañuy bañ te ngeen nekk fii ci àddina àddina tukkeegul di ma ne fi nekkoon yonent fekku leen fi fekku ñu fi fekku ñu fi ñoo ñoon yàlla lijjanti seen mbir ginnaaw yàlla lijjanti seen mbir nag même mu amat bu a wax ma jéggu jéggulul sama yaay yàlla da ko naaye loolu yow seen mbir dama ne nekkoon fekku ñu fi ab yonent fekku leen fi amuñu téere amuñu diine ba dem àllaaxira ñooñu yàlla li jënd ci mbir yoonu kenn nekku ca te ñooñu Mahmoud rek ak Aminata ca la ñu bokk te xamaluñ leen leen xamaluñu leen dara dara dara dara dara dara dara luy niroo dañ daan jaamu ay xirim wala dañ daan sujjóotal ay xirim je judd ma nekk ci biir jaahiliya tax te doon ab jaahil wa min raj madinati rajulun yasha qaala yaa qawmi ittabiul mursal ndax ñooñu ndax ndax ñooñu yonent yàlla Isaa yónni woon ñu nekk ñetti nit ba ñeent dem di wooteel yàlla ci mbooloo moo xam ne kenn gëmu foon yàlla gaaye weddi ka dawe ca environnement dëkk ba dëkk di leen wax ne gëm leen ñii te moom gëmoon na ndax waa dëkk ba xamoon nañ ne ko ku gëm yàlla la wa jaa amin axtal madinati rajulun yas'a fan la mu jóg ñoom yaa layta qawmi ya'lamuun bimaa xafara lii rabbii kooku kenn xamu ko woon ndax maam maam Abdoulaye bokkul ca ñooña da leen a leer ndax maam maam Aysatu bokkul ca ñooña daf leen a leer fu di wootee fekk na fa ku gëm ko nëbb fu mu yonent di wootee rek fekk na fa ku gëm yàlla te di ko nëbb day dem ba mu siiw mu mu feñal ko waaye addina gépp àdd wedd yàlla diini di ma kenn ku gëm yàlla nekku fi bis boobu mooy bésab tukkuseel addina na leen leer wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu